bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ishaani ila yowmi iddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla moom mi nga xam ne màgg na te kawe na te moom dong moo yeyoo ñu jaamu ko ñoo ngi koy sant di ko gërëm ñoo koy sant di ko màggal ci turam yi nga xam ne ni màgg na te kawe na te tur yi nga xam ne ni moom dong moo ko yeyoo te moom dong moo am melokaan yooyu noonu ñoo ngi ñaanal sunu yonente muy Muhammad di doomi Abdullah moom mi nga xam ne ndaw la woon waaye ndaw lu matoon ndaw guddeem leer la bëccëgam leer la te kenn du ko sóobu di réer ñoo ngi ñaanal ay njabootam ñoom ñi nga xamante ni ñoo ko jàppalewoon woon ci yéen bu diis boobu ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñoo ngi ñaan yàlla na yàlla dotti tey sotti ay waame xéewal ak mbégte ci ñoom ñoo ngi ñaanal saxabam ñi nga xam ne ay tànneef nañu woon ñu doonoon ay tànneef yu mat tànneef gën képp koo xam ne du ñoom ñoo ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla kontaan ci ñoom ak képp koo xam ne topp na seen yoon ba bis penc doomu ndey ñoo ngi leen di nuyu nuyub islaam mooy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi ñaan yal yàlla dot ay yërmande ak ay waame xéewal sunu kaw doomu ndey ko ne ko xamee àjjuma bu ne ci waxtu bi nii xam sa diine dafay ñëw indi leen ay waxtaan yoo xam ne nii lenn li jubluwaay bi kese moom mooy ay mbir yoo xam ne li ñuy jëriñ fii si sunu dund waaye li ñuy jëriñ fële fañ jëm muy yombal te amuñu benn xel ñaar ne incha allahu rabbi ñun ñëpp dinañ fa dem ñoo ngi ñaan yàlla yàlla nañ fa dem ñu ànd ak suñu mbégte suñu borom yàlla kontaan si ñun te nandal ñu deewu kaw sara doomu ndey ñoo ngi ñaanal képp ko xam ne yaa ngi déglu rajo bi suñu kàddu nga koy dégg yàlla na yàlla yombal mbir yëpp ñi nga xam ne dañoo nekk say xat-xat yàlla na yàlla génne leen ci xat-xat yooyu ñi nga xamante ni tamit yàlla dafa dogal ñu nekk ci lalu hôpital baa ñuy sooxaale sax seen jàngoro yàlla na yàlla delloo leen seen njaboot ak seen liggéey ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay xat-xat moo xam mbirum immigration la waaye xat moo xam mbirum liggéey la ak lu mën ci doon yàlla mi nga xam ne mooy soppi guddi gi ci bëccëg gi di soppi bëccëg gi ci guddi gi moom mi nga xam ne dara tawu ko yàlla na yàlla yombal mbir yépp ba ñu génn ci ay xat-xat ñi nga xam ne ñoom ñooy ànd ak ñun saa su ne du ñu déglu muy ñu nekk ci télé bi yàlla na leen yàlla sàmm te yombal li ñuy ut ci télé bi bañ delluwaat ci seen njaboot yal na ko yàlla defal bépp doomu jullit ak fu mu munti nekk doomu ndey seen mbokk Mouhamed Bukhari moo nekk ci waxukaay bi ànd ak ab doomu ndeyam ànd ak ustaasam muy ustaas Omar Ndongo ñoo ngi ñaanal sunu mbokk moomu muy Abu Mariam te yàlla dafa dogal ñëwut waaye ñoo ngi sàkku ñaan ci yéen tamit tey dañ leen a ki nga xam ne nii mooy docteur Mouhamed Ahmed Lo incha allahu rabbi dañu ne dajaleel tolloog ñaar ba ñetti xutba yoo xamante ni lépp dafay wax ci lan nañuy def rekk ba ànd ak ndégte yàlla bëgguñu kontaan si ñun kon doomu ndey li ñuy def rek moom mooy bàyyi Mouhammad Ahmad Lo ba mu jot li ñu waxtaan boobu noonu alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidi almursalin nabiyina muhammadin wa ala wa ashabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam di leen dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla muslim génne nañ xadis boo xam ne anas ibnu malik radiallahu taala anhu moo ko jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne benn bés dama ànd ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu génne ci jàkka ji am jenn ju dajeeg yonent bi ci bunt jàkka ji ne ko yow yonent bi yàlla bi kañ la yowmal qiyaam di taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam geesu ko ne ko loo ko waajal loo ko waajal lan nga ko prépareel mu ne dafa mel ne waa ji dafa xaw a tiit ànd ak toroxlu daldi ne ko yow yonent yàlla bi man day préparé lu ko julli gu bari wala koor gu bari wala sarx su bari waaye day ku bëgg yàlla akub yonentam de laa ku bëgg yàlla akub yonentam laa yonent bi sallallahu alayhi ne ko yaa ka nga bëgg yéenay ànd anas ibnu malik radiallahu saxaaba yi bég nañ mbég moo xam ne gannaaw bañ bégee ci seenu dugg ci déggaatuñ mbég mu gën a rëy loole yi ñu dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nit ki kam bëgg lay àndal kon bëgg yàlla ak bëggub yonentam jullit bu nekk boo ko laajee mu ne la bëgg naa yàlla bëgg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ne ko bëggoo yàlla mu xulóog yow waaye nag dafa am aw bëggiin ni ñuy bëgge yàlla kon fukki sabab am na yoo xam ne jullit bu ko dajalee bokk ci ñi bëgg yàlla sabab ba ci jëkk mooy jàng alquran te settantal ko waxuñu rek njàng moo xam ne romb rek jàll waaye jàng ko ma xam li borom bi tabaraka wa taala di wax alxasan doomi ali ibn abi talib radiallahu anhuma da doon wax ne alquran saxaaba yi niñ ko jàppe woon ku ko ci mas a jot da ngay jàpp ne boo ko yëkkatee ab leetar buñ la bind la nga di ko jàng noonu lañ koy jàppe di xool lan lañ leen ci wax di ko settantal bu guddee bu bëccëgee ñu yàlla koo settantal nit ki boo ko bindee ab leetar boo xam ne dañ ne ko lii yow lañ ko adressé balaa am jàmm dana xam lu ci nekk bu dee aw làkkam la dana ko daal di jàng dégg ko bu dee làkk wu mu xamul dana seeti ku ko xam laaj ko ba xam lu leetar bi wax mu doo a am jàmm mu ne nag ñoom ku ci mës a yëkkati kaamil bi jàng li ngay yëg mooy leetar ñu la bind la doo am jàmm te xamoo liñ ci wax lu mu doon lu ci leer ñu xam ne loolu leer na luñ ci xamul ñu dellu ci yonente ba sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ko kon noonu la jullit bi war a def ba suñ jooni tey lu mu ci xamul dellu ci borom xam-xam yi ñu xamal ko kooku mooy sabab bu njëkk bi ñaareel bi mooy jéem a am ngërëmul sa borom tabaraka wa ci naafile yi ndax borom bi tabaraka wa taala dafa wax ci xadis qudsi boo xam ne Buxaari moo ko génn mu ne sama jaam bi daal li gën ci lu may jaamu mooy lu ma farataal ci moom lii farata la loolu mooy lu mu gën a konk waaye nag nee na suma jaam bi du dañ mukk di ma jege ci ay naafila la bu ñu ko waxee mën naa doon ci julli mën naa doon ci koor mën naa doon ci sarax ndax leen lu ci ne dafa am farata julli xam ngeen ne ay farataam juróomi julli la bu dee koor xam nañ ne ramadan la bu dee saraxe maanaam joxe alal joxe asaka moo ci farata waaye yeneen yi ci def yépp naafila la tudd nee na nag naafila yooyu jaam bi du dañ bi ma ci jege di ma ci jege ba ma bëgg ko kon foofu nag la ñuy jaare pour am mbëggeelu sunu borom tabaraka wa taala def farata yi nag ci la ñuy jaar ba mucc ci ngay jaar ba mucc ci sawara waaye nag am mbëggeelu sa borom tabaraka wa ba mu jàppale la fii ci àdduna yëkkati la ba nga àgg ci daraja yi ñu baax ne kooku naafila yi moo la koy may ñetteelu sabab bi mooy saxoo tudd tudd yàlla ci sa làmmiñ di ko fàttaliku itam ci sa xol looy bëgg a def lu nekk sa xel dem ci ndax lii sama borom daganal na ko wala daganalu ko ndax farataal na ko farat ko ndax lii yoon la wala du yoon loolu ci la jullit bi di sukkandiku ba fu mu toll fu ne xelam mi ngi ci boromam su ko defee nag loolu ànd ak aw làmmiñam di tur boromam fu mu toll ci biir loolu ci lay amee cofeel sunu borom tabaraka wa taala ñeenteelu sabab bi mooy say bëgg-bëggi bakkan la yàlla bëgg jiitu ko ci yow su yàlla bëggee ci yow jëf waaye xam nga ne jii jëf ju diis ci yow la yoo xam ne jàpp nga ne li waroo ko mën ndax sa bakkan mi ngi la koy bañ loo soo comparé ñaar ñooñu rek bàyyi li bakkan bi wax def li sa borom wax loolu nag bakkan baa nga ci biir adduna ak la ci biiram a nga ca alal a nga ca njaboot gaa nga ca kenn ku ci nekk léeg-léeg mu taxaw opposé wu ci kanam la yàlla bëgg jamono yoo xam ne nag ñaar ñooñu suñ taxawee muy la bakkan bi bëgg wala àdduna wala njaboot bi wala mbooloo mi lañ bëgg nga bàyyi la yàlla bëgg fekk leen ca su boobaa yaa ngay xañ sa bopp mbëggeelu sa borom tabaraka wa ab nattukaay la juróomeel ba moo di foo toll fu ne di xalaat sa boroom tabaraka wa taala ci lu aju ci turam yi ak melokaanam yi ak maanaa yi muy firi ak yaaxit bi am ci sa dund su sa borom tabaraka wa taala soo jàngee ci alquran mu ne inna allaha huwa razaqu dul quwati almatin yàlla mooy joxe wërsëg kooku doon aw turam nekk aw melokaanam nga yëg ci sa biir xol ne sa wërsëg bi nga nar a am fii ci àdduna doo fee jóge sa borom noppi na ci su ko defee bu boobaa doo am tiitaangee daw di ko wuti ba mu jaral lay jëfandikoo lu xaraam waaye nag da koy wuti ci lu lew ndax borom bi moo santaane loolu itam ne jël leen sabab si jaar fii su ko defee sa wërsëg ñëw ca ngay amee dalu xel itam ba doo iñaane ñi la wër doo iñaane ñi la wër ndax xam nga ne sa wërsëg dana ñëw ubbi sa bitig samp sa palaas keneen ñëw samp ci wet gi nga ne kii moom nit ñi saa bu ñu xëyee ci moom la ñuy dem waaye duñ ñëw ci man lim fi samp moo tax fekk loola njuumte la kooka fu mu mënoon a sampit wërsëgam moo ko fi fekk yow it fi nga samp ak foo mën a dem sa wërsëg rek moo la fay fekk su ko defee ki ñaanante day daal di raxasu ci xol yi kon ndeke turu yàlla yi ak melokaanam yi woo ci jël jàngat ko xam li muy firi xam li muy tekki am na noo koy dunde yow ci sa bopp mu am jeexit wu la defal jural la njariñ ci sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa boroom waaye ci sa digganteeg sa moroomi doomu aadama yi ngay dundal itam da ci am jeexit juróom benneelu sabab ba moo di xéewal yi yàlla defal foo tollu ku ne nga di ko yëg ndax bari na lool bari na lool sa cër yi mu la defal wér gi yaram gi nga am man di jóg di waaxu di dem di ñëw ku jaar ci feebar tëdd ne laaj ci ku nekk xam nga valeur valeur gi yaram fu mu toll wala boo boo ci jaarul yow te néew na nit bañ caa jaar boo xoolee gis ñi la wër ñii mënuñoo dox ñii di raam ñenn ñi bala ñoo dox des leen wommat ñii yor benn loxo ñii amuñuy loxo far ñii amuñuy loxo amuñuy tànk ñii mënuñoo wax seen soxla yooyu yépp yàlla musul la ca ba kenn ku nekk fam ko nattoo defal na la lu tane la far nga dem ba yor sa wér gi yaram nag di lekk di naan di liggéey di xoole di gis di wax ñuy dégg ñuy wax ngay dégg xéewal yu rëy yu toll noonu da di nit ki bu dee dund ci biir bu yàggee seytaane daf ko koy fàtteloo waaye bu ko seetloo dana yëg ne mi ngi ci biir xéewal yu rëy yoo xam ne suñ ko doon jaay du am njëgam du am njëgam juróom-ñaareel ba moo di nag jaamu yàlla bi nangoo toroxlu fi kanam borom toroxlu xol boo xam ne day yëg ne moom mii jaamu yàlla bu mu not la bu mu moom la bu mu yor ay mbiram la boo xam ne mënul ci boppam dara su ko nit ñi di yëkkatee yow yaa fi nekk yaa toll ni moom mu yëg ci biiram ne moom du dara melokaan woowu faw nit ki yor melokaan woowu door am cofeelu suñu borom tabaraka wa ndax kat bëgg naa yàlla yomb na waaye nag fexe ba yàlla bëgg la kooku yaa koy fàggul sa bopp faw nga nangoo sonn ci loolu dem ba yéeg ne yow jaamu yàlla bu tuuti bu doya bii nga xam ne àdduna li ci biiram bu ñu àndoon ne yaa fi nekk nga xool sa diggante sa bopp da nga yëg ne li nga aajowoo yow li nga aajowoo ci yoo xam ne suñ la ko defalut doo ko loolu wan na la ne yow nekkoo fi nit ki ci boppam su soxla woon a lekk képp gisut lu mu lekk mu def tuuti musaali su lekkee ba noppi ñam wi ci biiram su toogoon képp ñaari fan ñetti fan mënu koo génne jafe-jafe daal di jub ndox mi mu naan su toogee ñetti fan mënu koo génne jafe-jafe daal di jub kon ku aajowoo la ak aajowoo biiram goo xam ne yëg na ne moom ak luñ mën a wax jaam ba toroxlu la bu tuuti la bu suufe la fi kanamu boroomam tabaraka wa taala jullit bi loolu la war a dund juróom-ñetteel bi moo di nag jaam bi nangu di wéet ak boroomam bu ñu waxee wéet ak boroomam nag waxuñu dugg ay xalwa yoo xam ne dañ naan ñaari weer ak ñetti weer ak ñeenti weer nga xam ne kenn xamut ci loo nekk waaye moo di waxtu yi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na borom bi tabaraka wa taala day wàcce ci asamaan si ñëw ci asamaan si gën a wax ne muy bu njël jotee maanaam bu ñu demee ba guddi gi ñaari xaaj yi jàll ñu nekk ci xaaj bu mujj bi nee borom bi day ñëw ba foofu wàcc ba foofu di wax ne kan moo may ñaan ma may ko kan moo may jéggalu ma jéggal ko kan moo may laaj ma jox ko waxtu yooyu nga xam ne mooy waxtu yu wàccug sunu borom tabaraka wa mu fexe ba di ca jëriñu bu waxtu wa jotee mu jóg julli ay rakka tudd yàlla jàng alquran tàllal ay loxoom ñaan boromam tabaraka wa taala fexe ba loolu dugg ci biir programme ci lay amee cofeelu sunu borom tabaraka wa taala ba lu mu ko ñaanati mu may ko lu mu muslooti ci moom mu musal ko juróom-ñeenteelu sabab bi moo di nag nangoo topp yoon bi sallallahu alayhi wa sallam roy yonent bi alayhi salaatu wa ci ay jàngaleen borom bi tabaraka wa taala nee na qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni su fekkee ne da ngeen a bëgg yàlla su dee da ngeen a yàlla topp leen yàlla ne ko waxal de waxal yow yonent bi ne su fekkee ne da ngeen a bëgg yàlla kon topp leen topp leen moom mooy lan mooy tënku leen ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bépp jaamu yàlla booy def lépp looy def loo xam ne aw yiw nga ci jublu xoolal ba xam loola aw yiw la am de na ngay xam ne yiw la mooy loola lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan def la wala mu di ko santaane maanaam sax na ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saxaaba yi xam ko suñ ko xamee mu demee noonu góorgóorlu nga jaamu yàlla ci loola su la wóoree ne nag xamoo laajal borom xam-xam ya yi xam sunna suñ la nee ah lii de sax na ci sharia sañes na ko def ndax jaamu yàlla la boo xam ne yonent bi ak i saxaabaam xam nañ ko jëfee su la wóoree ne xamuñu ko bul nax sa bopp da ngay sa bopp rek waaye du doon mukk ak jaamu yàlla kon su fekkee ne alquran wax ne ko xul waxal yow yonent bi waxal ak nit ñi ne leen in kuntum tuhibuuna allaha fekkee ne da ngeen a bëgg yàlla fattabiuni topp leen ma kon ci topp yonente bi ak roy ko ci la nit ki di amee mbëggeelu sunu borom tabaraka wa taala fukkeelu sabab yooyu nag moo di say àndandoo ak say ñi ngay jëflenteel say xarit dëgg-dëgg na ñi nga xam ne ñooy ñi bëgg yàlla te jëfe ko te yàlla bëgg leen mooy ñu baax ñi nga xam ne tënku nañ ci alquran ak sunna di dundal seeni guddeeg ba bëccëg ci jaamu yàlla ak tudd ko say àndandoo na doon ñooñu su la mbir ma jafe woon it soo yàggee ànd ak ñooñu rek léegi nga gis njëriñ waaye nag bëggu kese rek goo xam ne da ko wax ci làmmiñ ne bëgg naa yàlla wala nga ne bëgg naa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jëfewoo yu mel ne sabab yi ñu wax su boobaa wax lay doon joo xam ne amul firnde amul tegtal boo xam ne moo koy wone kon yàlla na nu borom bi tabaraka wa taala may nu bokk ci ñi nga xam ne dañoo bëgg yàlla borom bi te jaar ca sabab yooyu tax yàlla bëgg leen ba sunu borom tabaraka wa taala bëgg leen wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain alhamdulilahi rabbil alamin wa salli allahuma wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi ñu xam ne xolub doomu aadama day feebar ni yaram di feebare day xumaag ni ab seetu di xumaage day xiif ni biir di xiife xolub doomu aadama feebar yu bari moo koy gaar feebar yooye ba ci yées te gën caa tar ci diine doomu aadama mooy feebaru xol bu wow xol bu wow musiba mu rëy la feebar bu metti la boo xam ne am na màndarga yu koy wone am na ay sabab yu koy waral am na it nag yu koy saafara kon képp koo xam ne xool nga sa bopp gis ne màndarga yii mu ngi ci yow wala am na ci yu nekk ci yow boo xoolee sabab yi da nga gis ne sabab yooyee am na ci yu la dal moo tax feebar bi nga ci yow waaye boo xoolee ya koy saafara it boo koy jëfee feebar ba di dañ yàlla na nu borom bi tabaraka a taala jàpp ndalal képp koo xam ne dara gaar na la ci loolu nga mën a jëfandikoo saafara su ndax nga mën a tàggoog moom yii wane ne feebar bi dal na nit ki yu bari la ba ci jiitu mooy tàyyeel ci topp yàlla ak def lu baax saa bu nit ki yëgee ne tàyyeel na ci topp yàlla tàyyeel na ci jóg jëfi lu baax loo xam ni amu ci intérêt àdduna nga xam ne xolam a ngay wow te borom bi tabaraka wa taala bi muy melal naafiq yi daf ne bokk na ci seeni màndarga mooy suñ jógee di julli ji ak tàyyeel la ñuy yëg suñ jógee di julli ji dañuy tàyyeel bokk na ci yi wane ne xol bi wow na moo di di déglu alxuraanul karim ak i waaraate ñi koy jàng ci sa kanam te sa amu ca soxla maanaam amul benn jeexit ci déglu gi muy déglu alxuraan wala benn jeexit ci waaraate yi nga xam ne ñu ngi koy waare su ko defee muy déglu alxuraan ak la ca nekk ci ay tëkku ak la ca nekk ci yoo xam ne yu war a tiital doomu aadama la lay jiitu ci xolam mooy jàpp ne loola ñeneen la ñuy wax waaye moom bokku ca su ko defee kooka xol ba wow na moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fàttali jëfandikool alquran ci fàttali képp koo xam ne ragal na dig bi leen yàlla dig muy daje gi ngeen war a dajeeg moom ci ragal alwaid muy dig bi suñu borom tabaraka wa taala wala tëkku bi mu tëkku nit ñi ka ko ragal kooka la alquran bi jëriñ moo tax mu ne tadakkir bil qurani man yaxaafu waid borom bi tabaraka wa taala nee na ñi gëm yàlla ñooñu mooy ñi nga xam ne buñ tuddee yàlla seeni xol dafay tiit buñ jàngee alxuraan fi ñoom da leen di dolli ngëm yàlla kon ñooñu mooy ñi nga xam ne seeni xol dafa mucc bokk na ci ñu wane ne xol bi itam dafa wow mooy lii romb nit yi ci ay mbir yoo xam ne war na caa waaru mu dem ba waarootu ca lu mel ne dee di dox di romb xëbru yi di gis doomu aadama yi fuñ tëdd ak dee ni mu war a mën a waare doomu aadama loola du ko waarati déglu musiba yi xew ci àdduna ak tremblement de terre yeeg suuf yi yëngu yeeg lakk yu metti yeeg musiba yi wàcc ci kaw doomu aadama yi su koy déglu mel na yoonam nekkut ca loola kooku mooy wane ne xol ba dafa wow bokk na ci yooyu mooy xol bu aji ci àddunay kese maanaam bëgg àdduna te sori àllaaxira lool su ko defee kooku àdduna képp mooy doon soxlaam ku muy xaritool àdduna mooy tax mu xaritoog yow ku muy mere àdduna mooy tax mu mere la ku muy bañ àdduna mooy tax mu bañ la kooka boroom xol bu wow la bokk na ci yi koy wone it moo di am na ak tumuranke bu ne ci biir xol bi boo xam ne nit ki moom lay yëg maanaam aw tiis lay yëg fu mu toll ab dundam du neex day yëg ne dënn bi dafa xat am na lu ko naqari am na lu koy metti loo xam ne xamut lu mu doon lu dundam neex neex ak lu alalam bari bari day yëg ni am na metti bu nekk ci biir xolam woo xam ne xamut lu koy dindi su ko defee naqar woowee tiitaage loolu ak njàqare loolu mooy wane ne xol ba dafa wow ku yomba mer lay doon léegi léeg sabab su ñàkk solo moo koy merloo léeg-léeg mu mer sax te du xam lan mooy sababu mer si dëgg-dëgg kooku mooy wane ne feebar bi dal na nit ka bokk na ci it lii wane ni feebar bi dal na nit ki mooy li ñuy wax yërmaande dafay génn ci xolam boobu amatu ko xalaatatul keneen boppam rek lay xalaat du yërëm ku ñàkk du yërëm miskin du yërëm ab jege ñaale ni ko borom bi tabaraka wa taala yi rek ne leen seeni xol dafa wow ba mel ne ay doj seeni xol dafa wow ba mel ni ay doj ay montagne mu ne sax seen xol yi dafa mel ne moo gën a wow ay montagne kon benn boo xamee gaar na doomu aadama ci yooyu yi ñu tudd na xam ne feebaru wowu xol gaar na ko wowu xol nag dafa am sabab yi koy waral maanaam yoo xam ne moo tax xolub nit ki wow yooye mooy lan ba ci jëkk mooy bëgg àdduna jublu ko won àllaaxira gannaaw loolu kum dal faww sa xol woowu ndax da ngay daal di fàtte dee ak lu nekk ci gannaawam ak lépp lu ci aju bi ci des mooy càggante sàggan nag buñ ko waxee mooy nit ci la mu waroon a jox itti joxatu ko dafay mel ne fàtte na ko la ko yées loola lay aj léppam kooku mooy càggante moom nag feebar bu doy waar la bu mettee metti la moo tax borom bi tabaraka wa taala dafa tudde ni ñi nga xam ne dañoo dem ba sàggan ñooñu dafa mel ne dañoo kaste seeni xol dañ caa teg ab tampon mënatuñoo xam lu baax mënatuñ koo dégg moo tax mu ne jahannama day ña koy feesal bu ëllëgee ci nit ñi ak jinne yi ay nit lañ yoo xam ne am nañ ay xol waaye xol yooyee duñ ko feesal dell ak dëkk ak lu baax am nañ ay bët waaye seen bët yooyee duñ ko xoole lu baax lu bon lañ cay xool am nañ ay nopp waaye nopp yooyee duñ ko dégloo lu baax kon lu bon rek la ñuy déglu moo tax mu teg te ni ulaayika kal an'am nee ñooñu ñoog mala yi ñooyam mu teg te ne sax bal hum adallu mu ne ñooñu sax ñoo gën a réer mala yi ndax mala yi la taxoon ñu bind leen ña ca moom nag la taxoon ñu bind ko nekku ca moo tax mu ne ulaayika humul gaafiloon ñooñu mooy ñi sàggan bokk na ci sabab yi koy andi it mooy ay àndandoo nag yu baaxul kooku ci yi sabab woowu xol gi ci lay bokk su fekkee àndandoo yu baaxul nit ki fépp foo xam fa lay toog jaxasoog ñoom di déglu seeni wax di waxanteeg ñoom guddi ak bëccëg mu nekk ca loola bu yàggee lañu ñu nekk faaw mu jaxasoo ak moom faaw mu dal ko la leen dal dana ko dal toog rek waxtaane loo xam ne lu baaxut la waxtaane yu xaraam toog rek kaf ak ak indi yoo xam ne ay caaxaan la toog rek di seetaan yoo xam ne ay film la yu jëm fenn ay caaxaan kooku koo xam ne moom nga saxoo sa xol faw dana mujj wow ndax dafay sori tudd yàlla dafay aju ci àdduna day aju ci caaxaan day aju ci pop loolu mooy wowal xol ba bokk na ci yi koy wowal itam moo di bari nit ci loo xam ne daf koy dugg ci mooy yàlla moo xam mooy yàlla la ci wàllu wax muy di jëw ak rambaaj ay digganteeg wax lu xaraam ak xasteeg yu mel noonu comme sax ci yow sa xol dana wow moo xam itam ci jëf la lekk alal jàmbur ak dox tànk yoo xam ne tànki caaxaan la ak fu mu mën a jëm loolu lépp ay xeet la yoo xam ne koo xam ne sax na ci ab xolam day mujj wow duutu faale dara moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee su defee bàkkaar dañuy daldi di tomb benn tomb bu ñuul ci xol bi bàkkaar bu mu def rek ñu tombal ko tomb bu ñuul yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na su tuubee ñu dindi lool xol bi seetaat wecc su continuer nag di def lu bon rek saxoo ko bu yàggee xol bi dafay mujj lépp ñuul kukk ba duutu mën a xàmmee lu baax ak lu bon nee na loolu mooy li borom bi tabaraka wa taala wax ne kalla bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun nee na xumaag jooju yi borom tabaraka wa taala di wax ne mooy tegee ci kaw xol yi mooy kat yàlla yi nee na su boobaa xumaag jooju moo koy dal xol bi day xumaag su boobaa nag la koy dindi mooy saafara yi ñu tudd ca kanam bokk na ci yi koy waral it moo di nag fàtte dee ak sukuraatus ndee ak bàmmeel ak la fa ne ci ay njàqare ak mbugalum bàmmeel ak xéewali bàmmeel ak balaas yiñ la fas yéene tegal ëllëg xool say jëf nu mu ak sa téere yi nga xam ne nar nañ koo génne ci sa kanam ne la jàngalal sa bopp sa téere nga koy jàng ci kanam mbooloo mi loo ma sa def jaar da ngay jaar ci kaw siraat sawara wa nga xam ne dañ ko faa tegal képp koo xam ne mooykatu yàlla la te sax ca ba fàww wala mu doonub yéefam wala képp koo xam ne ab xalam dafa wow su fekkee ne yooyu jóg na cim xelam xalaatatu ca bàyyeetu ko xel kooku mooy wowal ab xolam kon loolu lenn la ci mbir yi nga xam ne dañuy wowal xolub doomu aadama kii feebaru wow xol dal nag borom bi tabaraka wa taala amal na ko saafara saafara yooyee lu am solo la ba ci jiitu mooy sàkku xam-xamu sharia sax ci sàkku xam-xam foo toll fu nekk di dolliku ci sa kem kàttan ci xam-xamu alquran ak sunna xam-xamu tawxid boo xam mooy tax nit ki wéetal yàlla mucc ci bokkaale xam-xamu sunna boo xam ne mooy tax nit ki topp yonent bi sallallahu alayhi lépp loo xam ne mooy xeeti bidaa loolu ci liy xettali nit ki ab xolam bi woowoon wëlbatiku tooyaat loolu ci la bokk bokk na ci fàttaliku dee mooy safaanu yañ tuddoon rek bu dee fàttaliku dee ak sukkuraatus ndee ak bàmmeel ak lënd maayam mu wóor ko ni lu mu fa yóbbuwul woon ci jëf du ko fa fekk fàttaliku itam wala muy teewee sax nit ñi nga xam ne dañoo nekk ci sukuraat di bëgg a faatu mu di leen jiit di teewee néew yi ñuy rob di gas di suul mu di ca teg bëtam yooyu ci saafara xol bu wow ci la bokk ba tax yonente bi sallallahu wa sallam ci beneen ba dafay wax ne aksiru dikra haadimi lazzaat bari leen lu ngeen di fàttaliku dee bari leen lu ngeen di fàttaliku dee bokk na ci sabab yooyu mooy ziyaare ji ay xabru dem seeti bàmmeel xool doomu aadama yooyu nga xam ne boroomi pexe lañu woon boroomi alal lañu woon yi man-man lañu woon ñoom ñëpp ñu jekki-jekki suuf war leen ñu bàyyi seen alal yaag seen kër yaag seen doom yaag lépp loo xam ne lu amoon lañ mu teewe loolu xalaat ne moom mii kat tuuti rek moo des pour mu dem fekki leen xam ne fa mu jëm mooy foofa ak mujjam mooy seenu mujj kon loolu ak waaree ngi joo xam ne li tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane ko mooy day tooyal ab xol moo di moo tax mu ne tere woon naa leen ngeen dem siyaare ji xabru yi waaye dem leen siyaare ji ko ndax kët dafay tooyal ab xol dafay tooyal ay bët maanaam dafay jooyloo nit ki day fàttalikuloo nit ki itam àllaaxira mu ne nag waaye bu ngeen di ziyaare xabri it nag bu leen def lenn loo xam ne lu juyoog sharia la maanaam bu leen fa nekk di wax lu jaaduwut wala ngeen koy def wax lu jaaduwut mooy mel ne ka tëdd ca bàmmeel ba nga di ko ñaan topp wala ngay ñaan yàlla ne ko jaaraleel ma ko ci diw yooyu yëpp lu teguwul ci yoon la wala ngay def jëf ju dul noona mooy ñëw di raay ca kaw xabru ba wala bant ya fa nekk wala weññee nga xam ne dañ ko a xam yooyu yëpp dafa yoo xam ne ci biir hujur lay doon mooy bu leen wax bu leen def ak neen su ngeen siyaare xabbu bokk na ci saafara yooyu mooy xool kéemaani suñu borom tabaraka wa yi nekk ci biir alquran xalaat ci yi yàlla dig nitam ñu baax ñi war leen ko jox ëllëg ak yi mu tëkkoo noonam yi war leen koo mbugale ëllëg yooyu dafay fàttali loo nit ki tooyalaat xolam kon alquran ci li gën a mën a tooyal xol ci la bokk moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne alxuraan yi buñ ko dee jàng ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom seeni xol daanaka duutu dal dafay dafay dafay yëngu yëngu ragal yàlla boo xam ne bu yëngoo bañ dellu ci njàqare ñu ko ne seen borom la ñuy tudd seeni xol dalaat delsiwaat ci seen borom tabaraka wa taala summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dikrillah suñ ko déggee tudd yàlla googi mooy seen xol ya doon raf-rafi ñuy wëlbati ko dalalaat ko loolu xéewal sunu borom tabaraka wa taala nañ ko def bokk na ci yooyu bari nit ki lu muy tudd yàlla tudd yàlla yi nga xam ne moom yonente bi alayhi salaatu bari na lool képp koo xam ne takkoo naa moom daanaka sooy boo nga ne da ngay takkoo tudd yàlla sooy dugg fi gërëb ak sooy génn nag ak fu mu a doon nekk am na looy wax soo dajee ku nit am na loo leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah sax ci biir tudd yàlla ci la bokk di tàqalikoo ñoom ne leen asalaamaaleykum wa rahmatullah beneen itam kooku ci biir tudd yàlla la bokk kon jullit bi daanaka mouvement bu muy def bu ne dugg ak génn ak jóg taxaw ak tàmbalib liggéey ak noppi ci liggéey ak lu muy def lu nekk tudd yàlla nga fa saxoo boobu mu saxoo tudd yàlla ak di jéggalu yàlla loolu ci li gën a mën a tooyal ak xolam la saafaraal ko lépp loo xam ne xeeti wow woowi xol la moo tax borom bi tabaraka wa ne ñi nga xam ne la tax seeni xol dal mooy tudd yàlla bi ñuy tudd yàlla moo tax seeni xol ci dal la dëkk bokk na ci li ko mën a faj muy xol bu wow di seeti nag boroom xam-xam yi nga xam ne ñu jox ci ci ñoom ak ragal yàlla lañ ak topp yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jéem a jaxasoog ñoom di leen jéem a jege sa kem kàttan ndax ñoom soo néewee doole wala nga suufi ci wàllu imaan ñoo lay yokkaat su fekkee ne da ngaa fàtte ñoo lay fàttali su fekkee da ngaa réere ñoom ñoo lay xamal moo tax borom bi tabaraka wa taala ci suratul kahf mu ne na nga jël sa bopp boole koo ñi nga xam ne dañoo saxoo di jaamu seen borom suba ak ngoon te it jubluwuñ ca lenn lul seen jëmmi borom tabaraka wa taala kon mooy ñu am tawxid ñu am ixlaas taqol ak ñooña nee na te bu leen wan gannaaw mukk ngir taarub àdduna wala ngir am amu àdduna bul topp mukk koo xam ne danoo tàmpe ak xolam ba yàqu te fekk am amu àdduna képp moo tax kon ñooñu la la yàlla booleel nga ànd ak ñoom te wattandiku ñeneen ñu dul ñooñu bokk na ci ñuy tooyal xol moo di yërëm miskin yi ak ñu ñàkk ñi ak ñu mën a doon nag ci xeetu ñàkk di xool jurim yi di raay seen bopp di leen jàppale di leen dimbali loolu ci liy tooyal xol ci la bokk bokk na ci itam mooy nit ki fu mu gisalu bon moo xam nit da koy wax wala da koy def mu soppi ko kem kàttanam su dee loo xam ne da koy laa biire mu bàyyi ko mu laay ko biir mu bàyyi ko waaye fexe daal ba bañ a tàmm di gis lu bon te doo am benn réaction di ko xool noonu rek kooku bu yàggee xol ba day tàmm lu bon te loolu day wowal xol kon foo gisee lu bon rek na nga jéem a def réaction boo xam ne sa kem kàttan pour loola jóg fa lay doon moo xam wax lay doon moo xam jëf lay doon su fekkee ne ku koy def dafa bokk ci sa njaboot nga sañ ko tere wala nga sañ a jàpp ci loxoom wala nga sañ koo duma sax su fekkee ku ñuy duma la ci sa biir njaboot lu bon foo ko gisee na nga ci daal di taxaw ngir mu teñ sa kem kàttan ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ci xadis ba bokk na ci itam yi tooyal xol mooy di def yenn warugar yu mag yi nga xam ne borom bi da ko santaane feddali ko lool maanaam rafetal jëme ci ñaari waajur rafetal jëme ci ñaari waajur ak ñu mën a doon ak niñ mën a mel rafetalal sa diggante ak ñoom ci wàllu adduna lépp loo xam ne lu baax la nga di leen ci jàppale sa kem kàttan gëm lu baax li ngay def jëmale ko ci ñoom ak topp yàlla la boo xam ne ko yaabay suñu borom tabaraka wa taala nga ciy wut awaa nga ci wut leneen lu mu mën a doon kon loolu ci lii tooyal xol la bokk bokk na ci it nag jullit bi mu bari luy ñaan di dellu ci boroomam di tàllal ay loxoom rawatina ci waxtu ñaan yi rawatina guddi yi rawatina ceer bi mujj ci guddi gi di julli di tàllal ay loxoom di ñaan boroomam di ko jéggalu di ko ragal borom bi tabaraka wa taala ne su ngeen ma ñaanee danaa leen may kon yooyu ay sabab la yoo xam ne bu ci nit ki jàppee borom bi tabaraka wa taala mën na ko baaxe xolam sax ci diine ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam ànd ak ni mooy yonent bi daf daan wax ne yow sama borom sama xol bi yàlla na nga ko saxal ci sa diine ji loolu daf ko daan ñaan yow sama borom sama xol bi yàlla na nga ko saxal ci sa diine ji yaa muqallibal qulub sabbit qalbi ala diinik su fekkee yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy ñaan loolu kon ñi ci def ñëpp waruñoo sàggan ci ñaan te it kenn ku ne da war a tiit ci sa bopp foo toll ku ndax xol bi sunu borom tabaraka wa taala moo ko yor te xamuloo kañ lay wëlbati kon ñaan ko mu soxal ko ci diine ji lu am solo la loo xam ne bi mënu koo ñàkk kon nit ki bu mu dem mukk ba ne moom naagu na ne man gindiku naa wala mu ne li ma def ci lislaam bari na ba jàpp naa ne man saa mbir moom baax na ba noppi loolu lépp pexem seytaane la ci nit ki nit ki fu mu toll fu nekk dafa war a nekk ci tiitaange dafa war a nekk ci njàqare di bàyyi xel ne seytaane mi ngi koy fexeel te bunt bu ne la koy jaare itam pour jéem koo al imam ahmad ibn hanbal bi ko laajee kañ la sa xel di dal ci mbirum àjjana daf ne bu sa tànkum ndeyjoor duggee àjjana bu sa xel dal li fekk tànkum càmmoñ du fekk si wugg ndax pexam seytaane moom daanaka du jeex ala wa sallu wa sallim ala albashir nadir السراج المنير اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى خلفائه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بكرمك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات وأرشدنا إلى استدراك الهفوات قبل الفوات وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة ونجنا يوم العبور على الصراط حين تسكب العبرات اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآنس وحشتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا allahuma xfir lilmuslimina walmuslimat walmuminina walmuminat alaxyaai minhum walamwaat alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain amma baad mbokki jullit yi ñoo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ci def ay ndigalam ak bàyyi ay tereem mbokki jullit yi ñu xam ne sunu borom tabaraka wa taala wax na ci alquran ne amul kenn nit koo ne am na genn kàddu gu muy wax amul nit koo xam ne am na genn kàddu gu muy wax lu dul am na samay jaam yu fi moom di ko bind kon lépp lu nit wax bind nañ ko maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid lum wax lum mën a doon rek bindees na ko Muaz ibnu Jabal radiallahu taala anhu nettali na xadis bu gudd a gudd bu jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man ko cay wax ne ko xanaa du ngeen ñëw ma wax leen li nga xam ne moo dajale mbirum lislaam ñu ne ko umu kay yow yonentu yàlla bi mu ne leen li dajale mbirum lislaam ba noppi nekk ba pare nekk njoppaxtaru lislaam muy li ci gën a ñu ne ko yàlla bi mu ne mbir mi mooy diine mooy nangoo dugg ci diine al islam jox sa bopp yàlla keno la nag la ko téye nee na mooy julli njobbaxtan la nga xam ne nag moo ko kaweel mooy jihaad nee na bi yonente nag ma wax leen loo xam ne moo boole yooyu yépp ñu ne ko uxu kay yow yonente bi yàlla bi nee na mu tàllal làmmiñam bu tedd wa daal di koy téye ci loxoom ne ko fegal ma lii fegal ma lii maanaam tëyal ma kii muy làmmiñ wi mais Muaz ne ko ah yow yonent bi yàlla bi ndax yi ñuy wax kon nun dañ koy jàppe ndax lii ñuy wax dañ ñu ciy bindal dara kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah yow Muaz ah yow fi nga nekk sori na di sa kilat sa ummuk la ci arab boo xam ne ku wax lu a lañ koy wax ne ko ndax du nit ñi ëllëg la leen di tabbal sawara ci seen xarkanam yooyu ñuy jootu di daanu sawara ndax lenn la lu dul li ñuy wax ci seen làmmiñ yi kon wan na ko ne la wax ci làmmiñ yi mooy la ëpp luy doomu aadama ci sawara yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ci beneen xadis bu wér mu ne jaamub yàlla bi léeg-léeg mu wax genn kàddu benn baat benn mot benn terme mu wax ko boo bu naqari yàlla la nee na te fekk moom sax joxu ko benn importance jàpp ne lii mu wax daal du dara waaye nee loola ëllëg mu tàbbal ko ci sawara tàbbal bu xóot goo xam ne ci biir jahannama loo xam ne fa muy yooroo fa muy daanoo diggante bi dana mat juróom-ñaar fukki at kon fu xóot a la kon kàddu ci doomu aadama lu mat a sàmm la lu mat a wattu la lépp lu jóge ci kàddu doomu aadama mu sàmm kon loolu moo tax ci xutba tey bii ñu jagleel ko ixdar min shirkil alfaaz wattandikul bokkaale goo xam ne day dugg ci ay kàddu yoo xam ne yaa ko wax defe ne lu am solo la fekk lu rëy fa sunu borom la am na ay baat yoo xam ne nit ñaa ngi koy wax ci seeni làmmiñ te bàyyi ko xel fekk yooyu mën na leen lor ci seen diine mën naa yàq sax seen tawxid wala yaas billah kon lenn ni ci baat yooyu lañ dajale ngir ay misaal ngir jullit bi mën koo wattandiku ndax mu mën a aar diineen ba ca jëkk mooy kàddu bu soobee yàlla soob la wala bu soobee yàlla soob diw sa diw moom ne doon doomu aadama ibnu abbas nee na dafa am benn bis am waa ji ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba àggal ne ko bu soobee yàlla soob la day mais bi baaxan àggal yonente bi alayhi salatu wasalam ne ko tëyal mu noppi mu ne ko ndax danga maa bëgg a def moroomum yàlla neel bu soobee yàlla moom dong ndax coobare suñu borom tabaraka wa taala moo ko yor kon jullit bi war naa wattandiku coobare ca lay war a am te amagut mu di ko mu di ca boole keneen ku bokkut ak suñu borom tabaraka wa kon borom bi tabaraka wa taala képp bu mooy yore coobare kon la ngay wax na yam ci insha allah bu soobee yàlla bokk na ci yooyee ñaareel ba léeg-léeg nga dégg kàddu yi doomu aadama yoo xam ne dañuy wax ni diw laa yaakaar adduna ak alaxira loolu lu rëy la loo xam ne mën naa yóbbe nit ki sax waliyasu billahi tàbbi ci bokkaale ndax yaakaar ak xemmemtéef loo xam ne dañ ko joyal jox ko kooka di ko séentu tey ak ëllëg loolu sunu borom tabaraka wa taala rek moo ko jagoo ay alquran yu bare bare bari yoo xam ne mooy tegtale loolu mu borom bi tabaraka wa taala nee na ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla boole ko gartaay boole ko jihaad fi sabilillah nee na ñooñu di seen yaakaar ca lam aju mooy yërmaande seen borom seen yërmaande borom lañ yaakaar tegaat ca ne ñi nga xam ne nit ñu baax ñi nga xam ne ñoom la nit ñi jëm ci ñoom am ci ñoom yaakaar ba di leen wax wax ci mel noonu di wax ni yow laa yaakaar wala ñu di leen ñaan sax nee na ñooñe ci seen jëmmi bopp ñoom ñu baax ñooñe de loola dalu leen ndax ñoom seen yaakaar yépp yàlla lañ ko wékk nee na ñooña seen yàlla lañ ko wékk ndugalum yàlla dog yëpp lañ lañ ragal kon waaye waaye jaamu yàlla bi bu fekk jaamub yàlla koo xam ne ku baax la moom di yonent wala muy nit ku baax nga xam ne lépp yàlla la ko aj moom dong la yaakaar moom dong lay jaamu jotewut ak keneen dara boo kaalewut nga yow moom jëmm ju baax jooju yow nga def ko ak bokkaalewukaay di ko wax yow laa yaakaar wala yow laa yaakaar àdduna ak alaxira kon loolu doon la loo xam ne jullit bi war na ko wattadiku war naa sàmm làmmiñam ba mën a mucc ci yu mel noonu bokk na ci yooyu ay kàddu yoo xam ne nit ñi dañ koy wax léeg-léeg fekk lam làmboo lu rëy rëy la mooy saxal ne borom bi tabaraka wa taala dafa am doom donte waxuñu ko seen làmmiñ léegi-léeg nga dégg benn terme boo xam ne bu siiw la ci suñu société bi nit ki wax ba ne maam yàlla maam yàlla waliyaasu billah loolu kenn du ko ndax boo dee maam la kon li muy firi mooy am na kum jur mu jur la kooku musiba la xëy na ki koy wax ci làmmiñam la koy wax gëmut loolu ndax loolu ku ko gëmoon moom da génn lislaam ku gëm ne yàlla jur na kenn loolu kéefër la day génn nit ki lislaam waaye nag ka wax ci làmmiñam te jubluwu ci loolu war naa wattali ko aw làmmiñam mu di ci génne loo xam ne moom ci boppam kéefër la kon ko kàddu la koo xam ne du ko wax suñu borom tabaraka wa taala nee na lam yalid wa lam yuulad jurul kenn kenn jurul yi ba ñu waxee ne Uzayr doomu yàlla la nasaraan yi ñu ne Isa doomu yàlla la borom bi daf ne dalika qawluhum bi afwaahihim mu ne loolu de lu ñu wax ci seeni làmmiñ la waaye nag yudaahiruna alladina kafaru dañ ci nuróog ñi nga xam ne ay yéefar la loolu su ko nit ki waxoon te gëmu ko sax nuróog yi nuróog waxi yéefar jaar na mu daw ko wattandiku moo tax borom bi tabaraka wa taala teg ci ne faaxalakum allahu an laa yufikoon ñooñu yàlla nañ alku fu ñu leen mën a fekk loolu la suñu borom tabaraka wa taala tëje aay jooju xam ngeen ne ci njaal benn sóoru gaf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko boroomam yebalee bokk na ci yim yor war ko jot li nit ñi li mu wax ne wa yundar alladina qaalu taxada allahu walada mu ñëw ngir jàjj xëbal xëpp ñi nga xam ne dañuy wax ne borom bi tabaraka wa am na doom kon bépp kàddu boo xam ne ab jullitam koy wax mu mën koo jural loo xam ne li nuru loolu la na wattandiku loolu na sàmm làmmiñam ba yar ko ci lépp lu muy wax lu mu mën a doon lu jubbee doon dem na sax ba ay kàddu yu ñànga ñàng yu doy waaw yoo xam ne la chaque ne kàddu yu téefal yu rëy na ñi di ko wax jëmale ko ci suñu borom tabaraka wa taala am na ñuy dem bay wax ne yàlla tey jii xale bu góor la boo xam ne dafa sol pantalon léegi ñu dem ba ne dafa sol sax ab jiin wala iyaatu billah loolu ay kàddu la yoo xam ne kàddu yu kéefar la képp ku dégg ab jullit di ko wax war nga koo jàjj mu dellu gannaaw ci loolu xam ne loolu kenn du ko wax borom bi tabaraka wa taala sorente nag nga di ko nuróoleeg mbindeef surtout nag yow nga di ko di ko nuróoleeg mbindeef yi nga xam ne yow société bi ngay dund ña ko gën a sàggan ñoo koy def ñooy def yu mel noonu kon kooku lu ma tawattandiku la jullit du ko wax ci aw làmmiñam te jullit bi dafa war a daw làq diineem ci lépp loo xam ne lu koy yàq bokk na ci kàddu yooyu kàddu yoo xam ne siiw na ci jamono yu mujj yii mooy nit ki nga defal ko la yàlla na la diw sàngam fay tudd turu nit ku baax wala turu bu a doon boo xam ne rafet na ci moom jort mu ne yàlla na la fay loolu njuumte la fay ëllëg la jaam yi def ci ay jaamu yàlla borom bi tabaraka wa taala rek moo leen koy fay kon nga ba jàpp ne moo lay fay kooka yàlla lay séentu mu fey ko moom kon loolu pas-pas la boo xam ne julli gi war nañ koo dundal ci seen bopp war nañoo xam ne ka nga xam ne boo defee la baax mu fay la boo defee lu ñaaw moo lay mbugal kooku kenn rek la mooy sunu borom tabaraka wa taala lu yàlla moom kenn du ko jox keneen loolu nañ ko waxtandiku moo tax borom bi tabaraka wa taala ba muy melal nit ñu baax ña àndoon ak yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dana ñii ànd ak seen coono bi ñu def ci lislaam doo leen gis mukk ñu dépensé benn dépense moo xam bu ndaw la wala bu ci yoonu yàlla wala ñuy jóg di dox fi sabilillahi bi jihaad di jaar ci xur yeeg a génn nee na luñ mën a def ci yëngatu yooyu yi ñuy def ginnaaw génn nañ fi sabilillah nee na yàlla da leen koy bindal lu tax mu koy bind mu ne li yajziyahum nee na ngir yàlla fay leen li yajziyahum allahu ahsana ma kaanu yaamaluun li gën a rafet ci lañ doon jëf mu fay leen ko kon fay suñu borom tabaraka wa taala moo koy def moo tax borom bi tabaraka wa taala ne ee eh yéen nit ñi ragal leen seen borom te ngeen ragal bis bis boo xam ne mu ngi ñëw nga xam ne baay du jàggi ni mooy fay doom baay du fay doom doom itam du jëriñ baayam dara du ko mën a fay itam su boobaa mu ne lii day lu leen yàlla dig la wax leen ko te digub yàlla du jaar mu ne wattandiku leen nag adduna war leen wattandiku leen itam iblis war leen kon aaya boobu aaya bu mat a bàyyi xel la ci lu mel noonu kon borom bi tabaraka wa mooy fay ñépp ëllëg moo tax mu ne li yejjia li yajzi allahu kulla nafsin ma kasabat borom bi tabaraka wa taala nee na bakkan bu nekk loo fàggu muy lu baax wala muy lu bon nee na mooy ki nga xam ne moo la koy fay moo tax suñu borom tabaraka wa taala mu bokk ci melokaan yi turam yi muy maliki yawmi diin yooyu yi nga xam ne dañ koy jàng ci fatiha saa booy julli bu nekk jàng maliki yawmi diin la muy firi mooy ki nga xam ne mooy borom ëllëg moomeel goo xam ne mayu ca kenn dara lépp lu aju ci ëllëg moom fayat jéggaleeg loolu lépp ci loxo sunu borom tabaraka wa taala du yonent du malaaka du nit ku baax kum mën a doon bu bis boobaa kay la ngay tënk mooy boroom bi tabaraka wa taala jéggal la defal la tiraanga tàbbal la ajal ñépp loolu la ñu séentu bu bis boobaa kon wattul say kàddu yoo xam ne yaa ngi koy wax mu lor la fii ci àdduna fekk la nga ci jublu yow mooy wane ne fonk nga nit ki wala bëgg nga ko wala yu mel noonu ba loola tàbbal la ci loo xam ne bu ëllëgee da nga dugal sa bopp ci giraawaali goo xam ne kookee nga doon wax loola ci moom amaana moom xaw na ba mujj te bu boobaa yow mën nga am jafe-jafe ci geneen kàddu bu nuroog googu lool boo xam ne ab société boo xam ne ay julli dafay nekk mu yàlla na diw sàngam yokk saw fan yokku fan aw fan kenn ku nekk xam na ne borom bi tabaraka wa taala rek moo ko yokk waaye na diw werte jëm ci keneen ku mën a doon ku dul sunu borom tabaraka wa taala ndax loolu bokkaale la boo xam ne day dugg ci shirku rububiyya te ko day bokkaale bu garaaw bu doy waar ndax laa shakka ne mushrikoon yi nekkoon Quraysh sax nga xam ne ñoom la yonent bi doon woo ci lislaam te duggaguñ ci ñooñu xamoon nañ ne yàlla mooy bind yàlla mooy rey kon xamoon nañ ne aw fan ci loxo borom bi tabaraka wa taala la nekk kon yow mënoo doon ab jullit ba ni nga wëlbatiku di jaxase mbir yi ba jàpp ne aw fan mën naa nekk ci loxol doomu aadama ba ngay wax nit ne ko yàlla diw sàngam guddal soo fan nga kon fan yi ci loxo suñu borom tabaraka wa taala la nekk moom mooy dundal ku ko soob mooy rey ku ko soob bu waxtu faatoom joxee moo tax ma ne lahu mulku samawati wal ard mooy ci moom lépp loo xam ne mi ngi ci asamaan ak suuf ak la nekk ci seen diggante yuxyi wa yumiit mooy kii dundal mooy kii rey wa huwa ala kulli shay'in qadir moom dong mooy koo xam ne lépp la man dara tawu ko ci suratul mulk mi ngi wax ne tabaraka alladi bi yadihi al mulk barkeel na moom mi nga xam ne loxoom ci la lépp nekk moo moom lépp wa huwa ala kulli shay'in qadir mooy ki man lépp itam alladi xalaqa al mawta wal xayaa mooy ki bind dee ak dund kon dee ak dund suñu borom moo ko bind waaye yoonu doomu aadama nekk ci li tax mu bind ko it liyabluwakum ayukum ahsanu amala ngir ma nattu leen ba xam kan ci yéen moo gën a rafet jëf kon kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala te ku am xel ku xam nga ne diw sàngam ma ngay wax amaanab yonent la malaaka la nit ku baax naan yàlla na yokk saw fan xam nga ne bu doon yokk ay fan kon fanu boppam lay njëkk a yokk jamono yi ngay wax loolu moom mu nga ca xabru ya yàlla na ko yàlla yaram su na ci yooyu tam di ñaan sunu borom tabaraka wa taala tàllal say loxo sa borom di ko ñaan ñaana ñaan fay ñaan ba àggal ne ko maa ngi la ko ñaan ci barke bu sàngam wala ci dara ji du sàngam loolu lu ma tawattandiku jaam bi bu tàllalee loxoom boroomam na lépp effacé wu digganteem ak yàlla mu xam ne yàlla rek mooy joxe yàlla rek la ñuy yaakaar yàlla rek la ñuy wéetal su loolu amee borom bi tabaraka wa taala dana nangu sag ñaan moo tax mu ne ida saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daa mu def charte ba mu ne ida daani jaam yi bu ma la laajee nee leen ku leen jege laa luñ ma ñaan danaa leen ko may waaye ci sàkkuf ne suñ ma ñaanee suñ ma ñaanee kon jaam bi jamono yi mu yëkkatee loxoom di ñaan yàlla na wattali koo wax loo xam ne day nuróog ne day ñaan keneen moo tax kooku duutu ko tudd aw tur dafa koy jamono yi nga tuddagul ci biir ñaan gi mën ngaa julli ci yonente bi mën ngaa def ñaari rakka mën ngaa def lépp loo xam ne xeetu jaamu yàlla bu baax la waaye boo xasee tàllal say loxo sa borom nag la lépp évancé wu ba ñaan ba noppi jaam bi kon moom lay ñaane moo tax jëlewuñ ci saxaaba ya wala yonent ba wala taabiyoon ya nit ñu baax ñu leen jiitu woon ne ñuy tàllal seeni loxo di ñaan di wax ne yàlla may ma ci dara jëy diw sàngam yàlla may ma rek la ñuy wax ndax borom bi tabaraka wa taala bu la bëggee may dalay may ak mayam dara mun koo tënk rawatina lu jóge ci mbindeef moo xam loola daraja la moo xam ak mbaax la moo xam lu mën a doon loolu nag ñu bañ koo jaawale jàpp ne nit ku baax daa amul daraja wala daa amul barke dafa koy am na daraja am na barke nit ku baax am na daraja am na barke waaye dañ laa ñaan loo wut nag yow ca loola booy ñaan sa borom ñaan ko moom dong mu may la wa qaala rabbukum uduuni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen teg ca ni inna alladina yastakbiruuna an ibadati sa yadxuluuna jahannama daaxirin kon ñaan ku nekk xam na ne jaamu yàlla la ki ma bañ a jaamu nee na ñooñu mooy ñuy tàbbi sawar maanaam yi nga xam ne rëy jàpp na leen ba duñ tàllal seeni loxo seen boroom ñaan kon foofu li nga fi jële mooy ñaan ci boppam jaamu yàlla la jaamu yàlla nag boo koy defal yàlla doo ca boole mbindeef loolu moo tax tur yooyu ak wax yooyu ñuy faral di wax ñu fexe ba sellal làmmiñ yi ba lu mel noonu du ca amati borom bi tabaraka wa taala rek mooy boo xam ne su dogalee ne lor day dal ci sa kaw kenn mënu koo teggi su dogaloon ne aw yiw day sotti ko kenn mënu koo téye kon kooku mooy sunu borom wa taala moo jagoo loolu te ku gërëm ku toll nag nit ci bind bindeef yi war ngaa xam yow meeyoo nga defal ko ko te yemale ko moom bañ cee boole keneen kon kooku mooy sunu borom wa taala moo tax yonente bi alayhi salatu bokkoon na ci ay ñaanam buy tagg boromam allahumma la maani alima atayt yàlla yow yaay ki nga xam ne li nga joxe kenn mënu ko téye wala mu'tiya lima manaasa li nga tere yi kenn mënta tax mu wàcc kon kooku mooy sunu borom tabaraka wa taala faaw ñu xamee ko ci wàllu tawxid léeg-léegi nga gis ay wax yoo xam ne nit ñi danañ ko wax benn terme boo xam ne day faral di jaar ci làmmiñ yi lool mooy diw am na chance moo tax mu am nangam wala man de damaa am chance tey moo tax mu mucc ci nangam kooku musiba kenn du ko wax li ci arab di wax li xusni xas xasala kala wa kala maanaam sens moo am moo tax nangam am déedéet lay am wala mu ñàkk am kooku dogalu sunu borom tabaraka wa taala la yow kay da nga naan yàllaa ma musal tey moo tax ma jox tey moo tax ma am li tegu ci sama kaw yàllaa ko dogal waaye nag ne damaa am sens moo tax ma am nangam loolu du waxi jullit te lu mat a sellal làmmiñ yi la ba ñu wartadi ko lu mel noonu kon yow li ngay am di dal ci sa kaw ci ay xéewal ak i am am loolu sax du sa pexem bopp waxuma laay na ngay wax ne sens la boo xam ne sa sens bopp la sens bi nga xam ne kenn xamut mooy lan sax foofu ci àdduna kon jàppal na lépp lu ñëw ci sa kaw lépp lu la dal lépp loo am lépp loo xam ne mucc nga ca xamal ne loolu dogal sunu borom tabaraka wa taala loolu la jullit bi dox su ko waxee delloo na mbir ya boroom mu doon ci moom ak cant su fekkee métit la woon wala lu safaan la borom bi tabaraka wa taala mën na ko woyofal teggil ko ko su fekkee ne xéewal la mu delloo ko borom it mën na koo yokkal ndax la in shakartum la azidannakum la borom bi tabaraka wa taala wax waaye bu joxe xéewal bi ba àggal kat nga jàpp ne yow sa chance moo la ko jox borom bi tabaraka wa taala mën naa jëlaatu xéewalam bàyyi la ak loolu yi ngay tudde chance nag ba xam lu mu lay lu mu lay jox kon mbokki jullit yi bunt la boo xam ne bunt bu yaatu la moo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq saxal siraatul mustaqim wërsëgale nu mu sàmm sunuy cër ak sunuy làmmiñ ba lépp mën a jaar ci noo xam ne noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala bëggee lépp loo xam ne lu mu bëggut la ci ay wax ak i jëf yàlla nu dimbali ba mën a wattandiku loolu wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain alhamdulilah rabbil alamin mbokk yi euh, comme ñu ñoo ko bokk euh, dégg na euh, docteur Ahmed loolu yàlla na ko yàlla fay yàlla na sunu borom subhanahu wa taala bàyyi fi ba si kanam kanam moom ak mboolum jëli Eh, mbokk yi eh, yaakaar naa ne waxtaan bi kenn ku nekk si ñun war na xool bu baax li nga xamante ne moom la eh, cheikh bi wax fii mu taf ko si boppam lépp loo xamante ne dafa xaw jiyoog li nga xamante ne moom mooy tere sunu borom subhanahu wa taala ak sunu yenente bi alayhi salatu wasalaam nit ki jëm ko defaraat balaa mu fi jóge ndaxte la chaque ñun dinañ fi jóge kon dañuy ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala bi nga xam ne moom lañ jóge fii mu nekk loo xamante ni rafet la te E, ñoo ngi jéem a corriger suñu bopp rek bu soobee yàlla suñu borom subhanahu wa taala kon jóge bi dina dina loo xamante ne lu rafet lay doon bu soobee yàlla kon waa xam si ne waxtaan bi dana indi loon tey incha allah di e, ñaan auditeurs yëpp yàlla na yàlla suñu borom subhanahu mooy ñu dégg ak topp ak tamit lépp loo xam ne lañ dégg fii si waxtaan bi kon incha allah ñu fii la ñu yem ak yéen ba benn ajuma incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi